ci jàmm bi ñu bi nga xamante si nii moom nekk ci ñun respecté suñu ay kilifa diine ba tax na bi ñu jekkoo kilifa diine yi dañu bàyyi leen teguñu ci baat te pourtant bu ñu toppal suñu bakkan tuuti li ñu bëggoon dañu koy am par force mais xaw ma mooy sàllaaru kilifa diine yi mais du suñu leader yi fii du ñun waa peuple bi du ñu sàllaaru léegi yéen a gis ay menaces ay nappaate ay xiiru dem ci dina wax bu ñaaw nekk ñu ñu jàppoon ba léegi kon cela veut dire que ñi toog fii ñoom ñoo dégg waxu xalifa yi mais ñi jiite président Macky Sall faale wuñu suñu xalifa yi ak suñu kilifa diine yi il ñu xamal leen dara. situation bii ma gis dit, wan Sénégal on l'Afrique, Afrique wan na adduna bi il est hors de question ñuy sëgg di joxe suñu nous ngeen di continuer de nous door c'est fini l'esclavage c'est fini ma nous ne voulons pas la violence nous ne voulons pas la guerre nous ne voulons pas qu'il y ait des morts nous voulons la paix te jàmm bu na am ci ay jàmm mënoo ko am ci ay kàcc jàmm mënoo ko am ci ay tappale ni ngay amee jàmm mooy ngay wax dëgg di seede dëgg di dooleel dëgg loolu la ñuy woowee nit ku bëgg jàmm léegi nag il faut que ñu xam dara yéen ñi nekk si ginnaaw yëpp ñu leen naan ngeen jege si yéen ñëpp yéen ñi nekk si ginnaaw yëpp jege si leen